léegi damay waay billahi alaaji Seeko Omar Foutiou Ba Ndiagara Samb xam nga lu tax ma kontaan ci yow waaw dangaa mën sañse merci beaucoup père xam ngeen man j'ai des relations waaw mën naa fee andi mbër mën naa fee andi politicien na ñëw mën naa fee andi marabu na ñëw lu ngeen bëgg mën naa ko fee andi saaf samay ginaar lakk samay yàpp togg samay jën i eh, oh, ngoon na la ngoo ana ñuy ngoonal Moussa Ndiaye alaaji demoon Espagne dellu si ana ku koy togg sumbulu bàcci ana ku koy xalam baro ana koy laaj laaj yi ak di indi yenn situation de catastrophe yi. waaw seen mbokk seen xarit seen coppite. Mm. alaaji Sane am saabu ngoon daal.